ñaar fukk ak yuusufa ak ndamam asalaamaaleykum mbokk yi ñuy déglu nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla boroom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub yu mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw am nanu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci njàng mi weesu tàmbaliwoon woon nanu gëstu ci mbirum yuusufa mi doon fukkeelu doom ak benn ci biir fukki doomi yankoba yi ak ñaar jàngoon na ni ni yuusufa génte woon ni ko ay magam naroon na sujjóotale wante magi yuusufa gëmuñu ko waaye tey dinanu gis ni yàlla amale gént yuusufa ba indil ko ay magam ñu sukk ci kanamam ni nu ko gise woon mag yuusufa dañu ko bañoon te di ko fitnaal ndax gént gi mu amoon ci seen mer ak kiñaan dem nañu ba jaay ko nib jaam ay jaaykat yu bokk ci bànni ismaayil la bànni ismaayil ñoom yóbbu ko misira jaayaat ko jawriñu na buuru misira yusufa moom surga bu takku te jub woon ci liggéeyam ndaxte àndoon na ak yàlla te it yusufa ku góor yiw la woon ba taxoon jabaru sangam xemmem ko bëgga tëdd ak moom wante yusufa bañ tontu jigéen ja ne ko nu ma mën a defe bàkkaar bu rëy boobu ba tooñ yàlla nii naka noonu gannaaw ba yuusufa bañee njaaloo ak moom gisoon nanu ni jigéen ja sosale yuusufa ba tax ñu tëj ko kaso wante nekk ci kaso moo ko gënaloon muy bànneexu ab diir ci bàkkaar ndaxte coobareg yàlla la fonkoon diirub ñaari at yuusufa desoon na ca kaso ba wante yàlla fàttewu ko léegi nag nanu jëm kanam ba gis ni yàlla wëlbatee anami yuusufa nu ngi jàng ci tawret téereb njalben ga ci saar ñeen fukk ak benn mbind mi nee na ñaari at yu mat gannaaw ba ñu tëjee yuusufa na buuru misra gént di janeer taxaw ci wetu dexuk niil noonu mu gis juróom ñaari nag yu rafet te suur génne ca dex ga tey lekk ñaxum tefes ga mu dellu gis juróom ñaari nag yu ñaaw te yooy topp ci ñoom génn ca dex ga fekki leen ca tefes ga te juróom ñaari nag yu ñaaw yooyu te yooy daldi lekk juróom ñaari nag yu rafet ya te suur ci kaw loolu na yeewu ba noppi mu nelawaat dellu gént mu janeer juróom ñaari gub yu nangu te baax sax ci benn gi gannaaw ga juróom ñaari yu gooy te lakk ci mbooya mi sax tegu ca ñoom te juróom ñaari gub yu gooy ya daldi wann juróom ñaari gub yu nangu ya te baax noonu firawna yeewu fekk gént la woon ba bët sete firawna am jaaxle gu rëy ba woolu sëriñu tariyaax ya ak boroom xam-xam yépp ya ca réew misira mu nettali leen gént yi waaye kenn mënu ko tekkil firawna bi loolu amee fara buntu kër ne firawna tey jii fàttaliku naa samay tooñ dafa am bés firawna mere ay surgaam mu tëj ma kaso ca kër njiitu wattukat ya man ak kilifak lakkatu mburu ya genn guddi nag nu gént man ak moom te gént gu ci nekk ak li mu tekki fekk waxambaanew ebraan nekkoon na fa ak nun te mu doon jaamub njiitul wattukat ya booba nag nu nettali ko sunuy gént te mu tekkil nu ko mu wax ku nekk li géntam di firi te lépp doxe ni mu nu ko tekkee woon firawna delloo ma sama liggéey waaye mu reylu njiitu lakkati mburu ya ci wekk ko ci bant bi ko firawna dégge mu yónnee ñu woo yusufa ñu génne ko kaso ba nag bu gaaw daldi ko wat mu solu ba noppi mu dugg ci jataayu firawna firawna ne yusufa dama gént te kenn mënu ko tekki dégg naa ñuy wax ci yow naan boo déggee gént rekk dinga ko daldi mën a tekki waaye yusufa tontu ko ne du man waaye yàlla mooy jox firawna tontu gu rafet noonu kon firawna nettali yusufa géntam te gannaaw ba mu ko nettalee ba noppi mu wax yusufa ne noonu ma nettali mbir mi sëriñ yi waaye kenn mënuma ko tekkil bi yusufa déggee loolu mu tontu firawna ne géntu na lenn la yàlla dafa xamal firawna li muy def juróom ñaari nag yu baax yi juróom ñaari at lañu te it juróom ñaari gub yu baax yi juróom ñaari at lañu gént ki lenn la te juróom ñaari nag yu yooy yi te ñaaw yi génn topp ci ñoom di it juróom ñaari at te itam juróom ñaari gub yu gooy ya te mbooye mi lakk leen di juróom ñaari ati xiif loolu mooy lima ma wax firawna yàlla won na firawna li mu nara def juróom ñaari at yu naata ngi ñëw ci réewu misra mépp te gannaaw ñoom juróom ñaari ati xiif dina tàbbi ba suul naataange gépp ci réewu misra ndax xiif ba dina jeexal réew mi xiif ba dina tax ba dootuñu fàttaliku naataangeek réew mi ndax dina metti lool te gannaaw firawna gént na ko ñaari yoon kon yàlla dogal na mbir mi te dina ko wàccee ci lu gaaw léegi nag na firawna wut nit ku xarañ te xelu mu jiital ko ci réewu misira na firawna jóg fal ay ndaw ci réew mi yuy sàkku benn juróomeel ci ngóobi juróom ñaari ati naataange yi nañu dajale dundub at yu baax yooyu di ñëw te nañu denc pepp mi ci dëkk yi ci ndigali na di ko wattu ngir dunde ko noonu denc bi dina fegul réew misra ati xiif yiy ñëw ba xiif bi du faagaagal réew mi ndigal la nag rafet ci firaw na ak i jawriñam yépp noonu na ne jawriñ ya ndax mënees na gis nit ku mel ni kii nit ku yàlla sol xelam kon firawna ne yusufa ndegam yàlla xamal na la lii lépp leer na ne amul keneen ku xarañe ni ak ku xeloo ni yow kon dinaa la jiital ci sama kër te sama xeet wépp ci sa waaw lay wey ma sut la ci jal bi rekk gannaaw loolu nag na ne yusufa fal naa la ci li réewum misira mépp noonu na dindi jaaro bi ci loxoom def ko ci loxob yusufa mu solal ko yére yu jafete yiw te mu takkal ko caqu wurus mu jox ko watiiru jaraaf ji gëna kawe mu war ñu daldi yéene ca kanamam su jot leen noonu mu dëj ko ci réewu misira mépp ci kaw loolu na ne yuusufa man maay firawna te maa ngi wax ne ndare yow kenn dootul yëkkati loxoom wala tànkam ci réewu misira noonu firawna tudde yuusufa safnaat paneyox maanaam kiy musal bakkan noonu yusufa génn wër réewu misra mépp bi yuusufay taxaw ci kanam firawna buuru misra mu ngi toll woon ci fanweeri at booba yusufa jóge ci jataayam wër réew mi mépp ci biir juróom ñaari ati naataange suuf si nangu ba meññet mi tuuru mu dajale dundub juróom ñaari at yi ci réew misra def ko ci sàq ci biir dëkk yi mu def isàq ci dëkk bu nekk semb ca dund bi nekk ca tool ya ko wër noonu yusufa dajale pepp ba mu bare ne gàññ tollu ni suufu géej ba dootu ko waññi ndax wees na lim noonu juróom ñaari ati naataange yi ci réew misra jeex te juróom ñaari ati xiif yi tàmbali ñëw ni ko yuusufa waxe woon te xiif daldi dugg ci réew yépp waaye réew misra moom amoon na pepp bi waa misra xiifee nag ñu daldi jooytu ji ca na te mu ne leen ñoom ñépp dem leen ca yuusufa lu mu leen wax def leen ko boobu nag fekk na xiif bi wër na réew mépp noonu yuusufa ubbi denc yépp di jaay pepp waa misira xiif bi nag di tar ca réewu misira te réew yépp ñëw misira ngir jënd pepp ci yusufa ndax xiif bi dajoon na àddina sépp gannaaw loolu yanqoba maanaam baayu yuusufa ak i magam gis ne pepp am na ca réewum misira noonu mu ne ay doomam yu góor lu tax ngeen toog di xoolante rekk mu teg ca ne leen déglu leen yëg naa ne réewum misra am na pepp dem leen jëndalinu ca ndax nu mën am dund ba xiif bi bañ noo rey noonu nag fukki mag yi yuusufa ñëw misra ngir jënd pepp waaye yanqooba boolewul ak ñoom bensamen rakk yuusufa ngir ragal musiba gaar ko doomu israel ñëw nag ci biir ñiy jënd pepp ndax xiif bi daj na réewum kanaan fekk booba yuusufa mooy dogal ca réew ma di jaay pepp waa réew mépp noonu mag yuusufa ñëw su fi kanamam te yuusufa gis ay magam xàmmee leen waaye mu mel ni ku leen xàmmewul di wax ak ñoom ak kàddu yu dëgër ne leen fu ngeen jóge ñu tontu ko ne nu ngi jóge réewum kanan ngir jënd ci ab dund noonu yuusufa xàmmee ay magam waaye ñoom xàmmewuñu ko ci kaw loolu mu fàttaliku gént yi mu amoon ci ñoom ndax dégg ngeen li xew gis nanu magi yuusufa ñu sukk fi seen kanam rakk yuusufa mu méngoog la mu géntoon bu yàgg yuusufa mooma ñu bañoon te weddi ko bëgg ko rey léegi ñu ngi koy sujootal ca saasa yuusufa xàmme ay magam waaye ñoom xàmmewuñu ko ndaxte gisuñu ko lu ëpp ñaar fukki at ci njàng mi di ñëw bu soobee yàlla dinanu àggale nettalib yuusufa ba gis ni mu xàmmee ko ay magam waaye tey ji lan lanu yàlla bëgg jàngal jaarale ko ci nettalib yuusufa ak i magam yàlla dafa nu bëgg xamal ne li xewoon ci diggante yuusufa ak i magam dafay misaal li naroon a xewi ci diggante musalkatu àddina ak doomi aadama dina baax lool ci nun sunu mënee fàttaliku ne nettalib yuusufa am na ñaari wàll wàllu historique ak wàllu symbolique maanaam wàllu cosaan ak wàllu misaal li nu jàng lépp nag sunu ko fàttee ba mu des lenn na nekk lii yuusufa moo doon takkandeeru rammkat bi waroon a gane ci àddina am na daanaka téeméeri yëf yu nekk ci dunduk yuusufa yuy misaal dunduk ramukat bi naroon a ñëw amunu jotu faram-fànce yëf yooyu yépp tey waaye mën nañu ci tudd ñett ci bu jëkk gisoon nanu ni magi yuusufa xeebe yuusufa moom ak i géntam bañ nañu ko saaga ko fitnaal ko ba jaay ko sax noonu la deme woon ak ramukat bi yàlla yónni ci àddina waa àddina si bañ nañu ko moom ak kàddoom ñu saaga ko fitnaal ko jaay ko ba daaj ko sax ci bant ñaareelu misaal mi mooy ci bu jëkk nit ñi bañ nañu yuusufa tëj ko waaye buuru misira teral na ko fal ko kilifak réew mépp te wax képp ku bëgg a mucc ci xiif ak dee demleen ca yusufa naka noonu ci mbirum musalkatu àddina bi yàlla wàcce yàlla ci boppam ne na dem leen ci musalkat bi ma fal ñëw leen ci man jaare ci moom ku ñëw ci moom dootuloo xiif ci sa biir xol te sa ruu dina dund ba faw nit ñi bañ nañu ramukat bi ma yónni waaye man fal naa ko ni musalkatu àddina si ngir képp ku ko gëm doo sànk mukk waaye dinga am dund gudul jeex ci lu jëm nag ci ñetteelu méngale bi diggante yuusufa ak ràmmkat bi gis nanu ni magi yuusufa sukke fa kanamam moom mi ñu bañoon te weddi ko suufeel ko ca mujj ga su nañu ko naka noonu kàddug yàlla day yégle ne ràmmukat bi nit ñi bañ te weddi ko suufeel ko ba tey benn bés moom ci boppam dina dellusi ngir àtte àddina ci njub te bés booba waa àddina sépp dinañu sukk fa kanamam te xam bu wóor ne moom mooy ki yàlla fal ni musalkat ak àttekatu àddina kon mbokk yi fii lañu war a yem tey waaye na ngeen xalaat bu baax ci wax ji ndax yàlla dafa bëgg leeral seen xel ci lépp ci njàng mi di ñëw bu soobee yàlla dinanu àggale sunu nettali ci mbirum yonent yàlla yuusufa su fekkee ne am ngeen laaj ci lu ñu jàng tey ngeen bindunu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat ci kàddu gi nekk ci mbind mu sell mi kàddu yàlla nee na waxu yonent yi wér na te wer ngeen ko fonk mi ngi mel ni làmp buy leer ci bërëb bu lëndëm